asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo fii ci Thiès Prestige di jiital ci nuyoo bi kilifa ki yàlla jiital ci groupe bi di Pape Doumbia ak Cheikh ak moom ñëpp ñu leen di nuyu euh, ci teewaayu Serigne Mor xam naa ni euh, ngeen ñu indeeti question yu am solo ci jamono ji comme euh, waxtu wi nekk rek l'islam moom dafa dëppoo ak jamono Alxuraan moom téere la budul wees te lu ñëw mu delloo mu dëppoo moom ci ay question yoo xam te jigéen ju tuumaal góor maanaam tuuma ci wàllu njaaloo ak façon njaaloo yi ak waat lan mooy waat ak kañ lañu war a waat ak lu ñu war a waate ci ak lan lañu ñu war a waat yaakaar naa loolu yooyu question yi mam moor suñ ko déggee mooy tuuma jigéen tuumaal góor ni ko daa njaaloog moom ko defee façon njaaloo yi dafa bari fa am njaaloo goo xamante ni sunu borom subhanahu wa taala moom euh, bu jëkk ba mooy ñaar yi amul kii amul soxna kii amul borom kër bu boobaa njaaloo ga moo ci mooy bi gën a woyof dara woyoful ci nag ndax sunu borom ne wala taqrabu zina innahu kaana faaxisatan wa saa sabila nee na bu leen ko jege ndax baaxul baaxul ci biir baaxul ci biti mooy nëbb di ko def ak fis di ko def dara baaxul ci ndax day yàq day yàq nit da yàq famille day yàqu xel waaw day yàq jikko waaw yonent bi nee na day gàttalaw fan yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam day wàññi wërsëg yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam day tax dugg safara kon yooyu yëpp ah, kon eh, tàmbali mooy njaaroo gi mooy ñu am soxna ñu amul soxna boo boobaa téeméer dañ leen di dóor génne leen dëkk moy ñu amul soxna góor ak ku jigen ki waaye nak amna ak yombal gu am ci jigen ñi manam jeej bu ñu ragalé ne bu ko génné mu gëna yaqku imam Malik né nañ ko bay ci dëkk bi waaye du tee ñu duma ko timir yar ci sharia chariatul euh ñaareel ba moy ki am soxna wala ki am hmm jëkkër bu ñu jaalo sunu borom subhanahu wa taala nee nañ leen ray du jam ay xeer ba ñu faatu kon bu njëkk bi moy mooy wa wazzaani fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jaldatin bu téeméer yar ñaareel bi moy ci alxuraan ne ko waaye dañ ko mën suuxal texte bi waaye acte bi ba tey dafa des ci an naa si xool man suux ci ñuy jàng ulumul quraan boobu suñu bon wax ne bismillahi rahmaani rahiim as-sayxu was-sayxa izaa zanaya farjumuhumaa albatta ku am soxna ko góor gi bu njaaloo nañ ko jam ay xeer ba mu faatu ku jigéen nga nañ ko jam ay xeer ba mu faatu mooy isam bi leen raylu kanta nag bu dee siif waaw nga xam ne da ngaa siif bu boobaa sunu borom subhaanahu wa taala lépp leeral na ko سيما مارين بلاد كريو فتحاتكم على البي اي ان ارانا تحرثنا بلاد فرصة جين دين فيولا دفع حرام وبابا عتبي تاني فرصة تروروك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ممر كني فرصة كدارا مبكر وولا لم بل فرصة كوا بوكو دفل متى تلوالي نرائلا بواتي وات غوغيل سان كوتي aw ak luñ la forcé def rek ko rek yonent bi neena hadith sallallahu alayhi wasallam ñu yii yëkkatil nañ ko sama waxeet wi rufia an ummati alxata wa nisyan wa nisyan wa mastukrihu alayhi lu ñu juum jéggal nañ ko lu ñu fàtte jéggal nañ leen ko lu ñu leen forcé nañ leen ko kon jigéen dañu forcé viole ko viole ko charia euh, du ko du ko topp waaye ku góor ko lay topp naka la koy toppee bu dee ñaar yu jëkk ya il faut que mu ñeenti seere ñu gisandoo ko ci wenn saa بودي فيور نك بن سيري ابن الحزم الاندلسي تاع المحلى اللي راه لكم واو آه. آه. كان رك بوكو غيسي اديو سامو غيس نكو ديغ رك نك ني ديغ ديغ ندي يوخو رك موليك ني نياغا تي تا جيغي جانغي يوخو كون ميغي ميغي باج بو بوبا سيري لا ندخ بروم خام خام بو بو ني تودو كو خليفه الخامس دي عمر بن عبد العزيز آه. جيغي نيو نتي موم ديكو كلامي نيكو دنج ما فيولي lan mooy seere ba noddukat ba ñëw daal dégg na muy yuuxu ci bi dañ koy kon bu na ci yu rek yu la kon bu jigéen ñewé ni violé bu dañ koy laaj ay preuve sharia da koy ay preuve palpable wala mu dégg ko te fekk na gu góor ak ñoom ñu ngi ci biir wala ci li dëppoog jamono moo am ay traces yoo xamante ni euh, waaye scientifique yi dañ ko mën a génn te loolu yëpp di lu palpable bu boobaa ay preuve lay doon ndax euh, l'islam dàqu te xam-xam ah ndax l'islam moom modernité toujours dañuy ànd ci loo xam ne du xatu charia euh, sëñ Cheikh kon bu boobaa. للي شريعة من تكو جور كده نطلع ابن الحزم نينا بما دفع يركو معهم آه، جي ابرم خام خامي كمسكو دبني قطرة ده اكا زهري ابرم خام خامي ما جوا يب ابن الحزم دكو على اندلسي جي المحلة جي خاج بفك آه، بن نبي تم 11 آه، دكو جي لير جي باز 347 ب 350 جي سابيترو 2245 ndax suñu bokki daara yi cheikh imam Juzayri leeral na ko ci al fiqh al muqaaran ala mazahib al arbaa sëñ Mamoor boo demee ci fayrul jarrar bu imam Shawkaani leeral na ko ci buntu wat yu bari sax mom leeral na ko imam imaamu ci Sayrul jarrar yoy ay ay joxoñ la yo xam ne dañ ko yëpp ko topp rek eh, danga nga cee mën a am lu gën a yaatu lii ndax eh, minutes yi dootul bari kon bu ko defee boobaa dañ koy tëj tëj bu yàgg moom mi violé góor gi bu amee bu ci amee preuve dañ ko tëj tëj bu yàgg ba pare yar ko ci biir kaso bi ba pare teg ko alamaan maanaam alamaan bi nag mooy jigéen ñi tey bu doon sëy la muy laaj lépp pour d'accord sëy ak lu mu mën a bari bari bari loolay amaan bi te seere bi kenn dong doy na ci kon viol dafa garaaw ndax ñaari bàkkaar la sa diggante sa borom ak sa diggante sa morom yal na ci yàlla musal bu boobaa nag deuxième question bi Cheikh su ma ko dégg may waat waat nag euh, lu lu dangereux la ndax sellal borom bi la nangul borom bi la wane ni yaa ngi ci biir diini l'islam la wane ni يعني رأي النبي عليه الصلاة والسلام اللب لو خمنتني مو سيمبول الإسلام أمو يري مبكو معنى مقاصد الشريعة آه. معنى لي فيناليتي دلا الشريعة تي والو وات آه. يعني جيري موي ماغال بروم بي خمي يالا لي بنت رسول الله مو غنجي يالا لي بنت نانغول كو الاسلام اي سيمبول تفاسيوني تي مابو بن moo tax c'est dangereux c'est voilà. c'est plus que dangereux waaw ëpp na fooy ëpp na fooy moo tax suñu borom di wax ci alxuraan bi yonent bi alayhi wala tuti kulla xallafin mahin bul topp koo xam la buy xuus rek kiñ koy def loo mooy ki bëgg a setal ab deram waaye ki taqalaate dañ ne ko indi say preuve waaye warlu wuñ ko te ki war a joxal joxe ndigalal waat mooy ab attekat ndax mooy xool ni preuve yii ndaw si indi palpable doyul mu doog wax ku góor ki waatal bu góor ki waatee rek day daal set wecc ndax jigéen ji bu fekkente ni daa tuumaal góor gi

yàlla nañu jëlee musal waaw te àtte moom yàlla rek ko jagoo ndax ko yëpp ku yaate na nga àtte équitablement yonent bi la sëñ Cheikh ñaar ñee lañ jëm benn baa jëna ñun ko yenn ñaar ñu jëm sawara mu ni ki xamul dëgg ni day àtte la xam dëgg dafa tegg dëgg ngir nag intérêt yi boppam sawara la jëm waaye ki xam dëgg dëgg àjjana la jëm yàlla nañu yàlla boole ak sunu àttekat yëpp ña ña xam dëgg te àtte dëgg te di ko ngir yàlla ndax fu jàmmaam dëgg fa nekk fu dëgg ju jàmm du fa am xam nga lan mooy jàmm mooy dëgg waaw jàmm mooy dëgg Maam Mor dëgg du jàmm moo tax ñaare maslaamu bari mi lu ci bari du dëgg eh, ndax boo demee sax ci constitution bi premier article bi tous les Sénégalais sont égaux devant la loi Ils au même pied de validité. la ah, loi, la loi elle est impersonnelle elle est impersonnelle Elle ah, ay feelaa ay ay ay kon bu ko la ñuy te pourquoi ni ci charia est ngas gor te charia wallazina yarmuuna almuxsanaati summa lam yatuu bi arbaati shuhadaa fajliduuhum samaaniina jaldatan nee na ñi nga xam ne dañoo tuumaal góor ñi te indi ñu preuve yu palpable nañ leen dóor quatre-vingts kon ku jigéen bu tuumaalee góor te palpable dañ ko dóor quatre-vingts waaye bu fekkente ni fondewu na góor ga dañ koy tëj tëj bu yàgg ba pare punir ko ci biir kaso kaso bi eh, punition yu metti ba pare teg ko amande loolu charia ci lépp ci borom xam-xam waat nag bu kookee dee waat nag dañuy waat ci turu yàlla yi wala ci melo yàlla yi waaw waat ci jëmm wala ci sëriñ xataa yonent desu ci waat ndax yonent bi dafa ne alayhi salaatu wasalaam Buxaari yi indi ko mamur muslim indi ko xadis la bu wér yonent bi daal ne alayhi salaatu wasalaam man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut képp kuy waat da nga waat ci yàlla wala nga noppi kuy waat da ngay waat ci yàlla nu ñuy ci yàlla mooy billaahi wala nga ne wala ci meloy yàlla yi waaw comme ni yonent bi daan waate maa ngi giñ ci ci ngëpp sama ruux ci loxoom muy sunu borom kon ci turu yàlla yi wala ci meloy yàlla yi la ñuy waate loolu loolu nag du waat ci charia ci charia kon dañuy waat ci jëmm dañuy waat ci yàlla ak melo yi sunu borom yi ñaata façon waat moo am ñetti façon waat moom yaminul munaqid ñaari façon la ak yaminul wi ak yaminul amuus waaw yaminul munaqid mooy waat gi nga xamante ni ba nga koy waat danga koo fas ni weer wii wala at mi wala dat sangam danaa def nangam waat ko mu yaminul munaqid Euh, moo tax ñu xaaj ko ala birrin wala euh, euh, ala ala xanafin mooy dangay wat ci danaa def nangam waaw waaw waat ni wallahi danaa def nangam wala waat ni wala wala nga waat ni wallahi danaa bàyyi nangam ba sàngam mooy bu njëkk bi hmm? bu fekkente ni nag umuri wuko buboba da ngay kafara kafara gi nak moy sunu bon subhanahu wa taala wala ko sirri mam ndax yàlla mom fa bayul dara ha fa kafaaratuhu itaamu asharati matakin min awsati ma tut'imu ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fa siyaamu salaasati ayyaam bu fekkee da ngaa waat te defoo ko da ngay woor fukki fan maanaam da da ngay leel fukki miskin ci li gën a diggu doomu ci li ñuy dunde ci réew mi maanaam ceeb fukki miskin nga leel leen wala nga jox leen nga wordu leen utul leen ay mbubb yëre wala nga goreel jaam wala nga woor ñetti fan loolu mooy punition bi boo waatee dara te ba nga koy waat fas nga ko te difu ko bu boobaa loolay punition bi foofu nag am na sew-sew maanaam nga waat ni sama xewu mbokk mële du ma ca dem te ba nga koy fas nga ko foofu charia yonent bi daay jàngale ni bu boobaa te xam ni dem gi moo gën ba càg ni dem gi moo gën te waatoon nga ko ba pare bu boobaa dañ ni la ngay defi moo gën li nga bàyyi bu boobaa kafaaraal te dem maanaam leleel fukki miskin wala nga jox leen woddu leen wala nga goreel jàmm ba jàmm di am léegi jàmm amatul wala nga war ñetti fan kon waat loolu doy la moo tax eh, walillahi asmaul husna fad'uhu biha ci tur yàlla yi rek yàlla boo koy woo ci turam nga koy woo wala ci ay mbiram doo ko woo ci leneen boobooy bu jëkk ba ñaareel ba mooy yaminul laghwi mooy waat goo xam ne ba nga koy def mi ngi mel ni rek man la xaaral añ nga ni bi la yow lay suur naa fekk boobu sax suuroo waaye nag ba nga koy wax da ko wax ni waaye fasoo ko foofu yàlla mi gën a xam doomu ma maam Mor leeral na ko mooy laa yuwaaxisikumullahu billaahi fi aymanikum illa walakin yuwaaxisikum bi maa xattumul ayman fi aymanikum yàlla du leen jàppe wat yi nga xamanteni ba ngeen koy wat fasu leen ko waaye nag lim leen jàppi walakin xis yuwaaxisukum bimaa aqadtumul aymaan la ngeen fas la leen di jàppe kon yamiinul laxwi dara nekku ca waaw mooy ba nga koy wax fasoo ko wala mi am na ñaari façon nag am na boo xamante ni ma ah cheikh abal ma Ah, sa sa bii nga takk nga ni ah dañ ne wallahi billahi eh, eh, wala eh, man la man wala man la abal ma montre daal montre nga ne ah billahi yoru ma montre te ba nga koy fas nga ko te boobu yëgoo ni sa montre yaa def nga ko sa bos te yëgoo ko nga jékki-jékki lamb rek yëg ni mi ngi ca bu boobaa dara ni wu ca ndax ba nga koy wax façon ko da nga ni Yuru montre bi ci sa poos way bi nga lambe rek daal daj montre bi rek bu boobaa dara nekkut wat gi graw nak moy yaminul khamus moy ko xamantene xam nga li nga nek aw fen leer nañ la nga wat ni deug la nga wat ni nangam amul nga wat wacc ni li amna bu boba, borom xam-xam yi li ci yëpp nee sawara nga jëm sawara rek moy sa kenn ki ci fiddi jiw di Shafii daal ni foog nga jàng ko kon waaw foog punition dal la moo tax yaminul xamuus ku gëm du ko def mooy wat ci ay fen ndax yonent bi nee na ab du fen al kon ñetti façon waat yi moom na waat ci yàlla wala mu noppi boo ko defee wat day setal der bu ko defee ka tuuma laate yonent bi dafa ni xam nga dafa am benn texte bu ñu naan al muddaa wal muddaa alayhi al bayyinatu ala man iddaa wal yaminu ala man ankara texte juridique la mooy ay preuve dañ koy laaj ki yëkkati pelantam teg ni ko and say preuve waaye nag kañu teg toor ja wala kañ teg tuuba ja dañ naan ko waatal waaw wal yaminu ala man ankara moo tax rasulullahi àl tënk ko baynatuka aw yaminuhu moo tax ñaari du ñu ànd maam moor maanaam maanaam ay preuve ak nous du ñu ànd ay preuve bu palpable jëlu ñu waat bu palpable nag la waat di ñëw <coughs> question bi ci top rek Cheikh comme ni ko waxee nous rek pas ndax nit mën nous waat ci place nit manam nit waatal nit lolu sharia da ko dàq da ko bañ ndax borom xam-xam bo di ibn eh, ibn khuddama ci al-Mughni ci ci ci faslul yamin wax na ci lu bari nee na kenn mënta waatal kenn baay mënta waatal doom doom mënta waatal baay ndey mënta waatal borom doom doom mënta waatal ndey borom kër mënta waatal soxnaam soxna mënta waatal borom kër kenn ku ne yaa waatal bopp àgg na ba ci sax ni gone bu fekkente ni dafa war a waat te majeurul dañ nañ aj waat ga ba mu majeur doo ko waat أجنا بتشني مامي ابن خدامة تعال مغني شتوم ويت في فصل اليمين زين مامور أجنا بتشني كي خلهم دم تمو وراوات بو بو دا ني اجوات با كير خلام دي ديك رك واي كين دوكو واتال كين دو واتال كوني ياكو ديفار سبب عليكم ورحمه الله وبركاته